Diagne et Abdou Karim Gueye à la DIC. Se passe-t-il finalement au Sénégal Interdiction presque totale de parler de la gestion du président Sall yaa oustaz mu mel ni. ginnaaw bi nga xamante ne Abdou Karim euh, Guèye ak Cheikh Omar Diagne génn nañ indi ay kàddu euh, ci li nga xamante ne condition de détention yi nga xamante ne moom lañ jàppee woon kii di imaam imam Alioune Badara euh, ñu ne ginnaaw loolee dafa jëlee ab tawat ba daal di ci ñàkk bakkanam ak gestion yi nga xamante ne gestion bi nga xamante ne moom la état du Sénégal di yore. suñu réew ñu ciy wax dañ leen a convoqué dikk ba daanaka téye nañ leen fa ni ki démb euh, ban xalaat nga am ak jàngat ci ni Sénégal di doxee actuellement. waaw ñu sant yàlla tabaaraka wa taala sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. di kontaan gi mënut a passé euh, la daloon yonent Yàlla Muhammad. dal ashaaba rasulihi. Mhm. wa xulafaa yi taabiina taabiina ila amsal bi mhm. maanaa la toppoon yonent bi ci fitna toppoon saxaaba yi ci fitna toppoon mag ñu baax ñi ci fitna mhm. toppoon maam sunu maam ju baax jooju Seexu Omar radiallahu an mhm. Seydi Xaasi Malik maam borom Tuuba Seex al Islaam Seydina Limaamul Mahdi al moo toppoon tey jii imaam Ndaw doon liggéey yàlla tabaraka wa taala ci teg ko loo xam ne rek ngir lan noonu yàlla am ndam jël ko yóbbu ko ci kaso mm-hmm. jombul jullit koo xam ne deful waxut nga jël ko yóbbu kaso jël te ko teg nattu mm-hmm. ngir mu wax te xamul lu dëgg namp lu leen islaam mm-hmm. boo ko naray du ko wax ndax loo xamul xamoo ko kon sabab bi bi maanaa dañu ne leen lu nekk dañu xool intention ba imam Ndaw bu ñu waxee ne di euh, nguuru ko rey kon sababu rey ba ci ñoom la bàyyi ko. Mm-hmm. ndax bu ko dara jotoon doo ko dégg ci rajo doo ko dégg télévision. bokkoon naa ci njëkk njëkk defaan ca wal fajiri man mii. Oustaz mm-hmm. Diaga. Mm-hmm. Sidy Lamine ngi toog. man bëgg naa doon taalib yi yonent Yàlla Muhammad ba ba may faatu. sallallahu alayhi wa sallam te wallaay nguur nguur nguur yàlla dana jeex. te kullu nafsin bi ma kazzabat rahinun loo fi def nit. bis dana ñëw yàlla audité la te dana la atte mhm. ña ko ci jamono lu jiitu yonent bi ba tey ña ngi ci mbugal te kat yow ma xam ñëw gut fooy teer ñoom imaam ali ndaw yàlla na yàlla yi def ci moom yërmande ak njëggal sahid la xam nga sahid mhm. mooy kuy defar lislaam defar ngorom xam nga demoon ba sañu ko tuuma naan ibaadu la mais ñun ñun ñëpp ay ibaadu lañu képp ko nangu ne bootu nga ci ginnaaw rasulullah ibaadu nga mooy abdullahi jaamu yàlla nga mhm. waaye ku dégg ay kasetam yoo xam ne bii xamoo ko woon muy seede ci Cheikh Ahmadou Bamba seede ci Alaaji Malick Cheikh Omar Foutiou ne ko kon tuuma yàgg na ci àdduna mhm. léegi nag bu dee nag ko wax dëgg ñu jàpp la nañ jàpp ñëpp waaye dëgg de mooy mujj moom nee na di état rey Aliou ndaw mais mhm. kon bu ko rey mooy sabab ba mhm. jàpp nga nit kilifa kilifa as gor boo ko jàppoon benn seconde ci kaso mën naa dee nga jàpp ko yóbbu ko mu am ñaari at bu doon benn kaso ñu mën a wax mais ay kaso ak ay fitna ak di ko tuuma. Mhm. naan sumi sa yaram ay gone di ko saaga ndey di ko def yooyu mais loolu naqar ma mën a rey nit. Mhm. mais boo ko fi yóbbuwoon du am te njurul nañu nag yéen itam xam ne na. sallallahu lil mu'minatu kal miraatu mhm. fa isa wajaba nax ba ilay ne ni jullit bu góor ak bu jigéen dafa mel na seetu nabu waaw soo ñëwoon ci seetu nii mhm. nga taxu di wax mhm. taxu ci seetu xob gis nga sa kanam nii mel la tax sa ginnaaw mënoo ko gis dëgg la Oustaz Diago mën ko moo ñëw faas ko parce que mën na nekk luy dox bu mu ko faasee mooy yii nu kii Oustaz Diago bëgg loola màtt la xool yonent Yàlla Muhammad mu ne yuñ jullit ñi dañu mel ne jullit bu taxaw seetu di xool boppam te gisul ci gannaawam. Mm-hmm. la ci gannaaw noom taas man maa koy faxasal ne na mel leen noona kon imam Aliou Ndao bu amee naqar tey ba dem faatu. Mm-hmm. mu metti ñëpp man ñëpp la metti nag rawatina nga déglu ay waxam nga xam ne kon nag yow torture am na. Mm-hmm. xisaab am na musiba am na léegi nag jullit bi man ne man bu taxaw ne diw ko rey mais. xam nga newul néew xam nga ba tey néewul tuuru diw dama ne état ne état mi ko jël këram. Mm-hmm. et ci gën a yéem mooy fekk nit xaaju guddi nga indi ay journaliste international li ma gën a métti dugg lu baax de. Mm-hmm. ay caméraman ay internet nu ji kër gi mu mel ne tey di nga Sénégal day guerre ak beneen dëkk. Mm-hmm. génn ko monété ko filmer ko jaay ko ñoom jaay yi nga xam ne yàlla da nga lekk seen njëkk mais si lu su lu lu ko gën a ñu amul te billaahi yàgg na ko wax fii. Sénégal gi ay tubaab moomuñu ko ay moom ñu ko ay sénégalais ko moom ay chrétien ki musulman bu leen ko dara jaral état lu dul yàlla dana jeex te gannaaw yàlla yàlla dana réglé fa man yaamal misqaala sarratin mis sarra xam nga lan mooy lan otom loo xam bët mënu ko seen machine ma koy xool yàlla na boo ci def lu baax ma fay la boo ci def lu moo fay fay la mooy léegi damay interpeller monsieur le président de la république Macky mhm, Sall mhm. mooy bàyyi ñëpp di seen maam moytu lu ñuy dugal ci ay chrono Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye la jàpp euh, dikk Euh, niki démb mu mel nii dañ leen fa téye ginnaaw kàddu bi nga xamante ne moom la yëkkati ginnaaw bi nga xamante ni imaam Alioune Badara génn na àdduna. Mhm. ñu naan ba mu jugee ci prison ba ci la commencé am ay problème ñu téye leen mu mel ni Sénégal léegi boo tuddee lu jëm ci nguur gi rek ñu daal lay jàpp ràpp tëj kaso. Mhm. mu nekk situation bu doy waar. voilà donc euh, pense que c'était un peu prévisible pourquoi mot prévisible parce mhm. que. Euh, ku xool euh, Sénégal ni muy doxee léegi. Mhm. ak euh, lu jëm ci wàllu liberté d'expression lu jëm ci wàllu wax sa xalaat lu jëm ci wàllu. Euh, nga ne serait-ce que nga nga nga joxe sa sa avis. ci mhm. benn fait d'actualité wala sa gis-gis euh, ci benn fait d'actualité. Mhm. Euh, mën na la yóbbee effectivement soit ñu convoqué la ou alors ñu ñëw jël si la comme le cas de Abdou Aziz Abdou Karim. donc moom dégg naa ci avocat mi tey ci suba ak avocat bi nga xamante ne moom mooy représenté également. Euh, Cheikh Oumar Diagne mhm. muy expliqué ne Abdou Karim dañu ko jëli mhm. Cheikh Oumar nag expliqué nañu dem nañ di ko jëli mais dañ ko fekkoon ci ay yitte donc mhm. ñu convoqué ko dellu si waat à 18 heures avant moom aussi muy dugg ci biir dig bi déglu nañu déclaration bi nga xamante def na ko euh, et aux dernières nouvelles dañ leen retenir garde à vue fu mu nekk nii pour diffusion de fausses nouvelles donc loolu mooy euh, information bi nga xamante am nañu ko te li ñu ci mën a rek Euh, xam nga am réew bu ñu ko dee tuumaal ndax am nga démocratie mu déet wala nit ñi di njort ne xëy na li jëm ci wàllum liberté d'expression yëpp dafa am lu ko xaw a sooxee bu ñu dee def arrestation yu ni mel dafay gën a confirmer nit ñi ci seen position ci gis-gis boobee euh, nekk nañu ci am réew boo xam ne dëgg la république la mhm. dëgg la état de droit la dëgg la am na yu bëri yoo xamante ne dañ ko war di ko sàmm ak di ko respecté saa su nekk quel soit ki nga xamante moom moo fi nekk ndax far nañu moom wala déet mais libre na également ci gis-gisu kenn ku ci nekk nga joxe sa avis ci xew-xew boo xamante ne moom moo am ci kaawu imam Aliou ndaw nag il faut ñu euh, comprendre ne pour ñu dépassionner débat yi du mhm. yomb du yomb ndax dimension nit ki moo tax Mm-hmm. du yomb parce que nit ñi fi ko nit ñi tegoon moo tax histoire bi nga xamante ne am na ko dund na ko itam jaar-jaaram mm-hmm. euh, ak euh, ni nga xamante ne sunu borom moom na ko ñu koy ñaanal yàlla fi mu nekk gënal ko fu mu jóge donc foofu pour ñu dépassionner débat yi du yomb mm-hmm. maanaam pour nit wax ci ak xër wala pour nit wax ci ak xol bu tàng wala pour nit euh, prononcé wu ci ak li nga xamante ne moom mooy yëg-yëgam mu doon nag loo xam ne c'est à l'avantage de l'État wala nekkul ci avantage u bu Sénégal il faut ñu ki moo ni Mhm. voilà donc euh, et ñu mën a accorder nit ñi aussi benn certain écart boo xamante ne euh, diffusion de fausses nouvelles chef d'accusation la boo xam ne nit ñi dañu ko jàppee lu soofantal mais en réalité lu lu naqaree setal la lu mhm. naqaree dindi la parce qu'il va falloir apporter beaucoup de preuves ci wàllu woowee ci contexte ba ñu ko waxee ñu jëlee ko juste ci contexte boobu bañ a aggraver situation mhm. je pense qu'on n'a pas besoin de tension en ce moment on n'a pas euh, donc ñuy sentir ne xaw na am benn te bu ñuy xaw a wala poñe bu ñuy poñe nit ñi tuuti rek ci li nga xam ne moom moo jëm ci seen gis-gis ak seen kàddu yenn yu ni mel. Mhm. Euh, ne kenn nekkul ci intérêt nekk ci dëkk di semer soit la zizanie wala di indi benn certain déséquilibre ci li nga xam ne mhm. moom mooy fonctionnement wu dëkk bi na ma doxee. Mhm. mais nañu accorder nit ñi. Euh, occasion wu ñu mën a wax li nga xamante ne moom mooy seen gis-gis Cheikh Omar Diagne. Euh, c'est quelqu'un boo xamante ne euh, lu jëm ci wàllum actualité réew mi moo xam mu neex wala a naqari ñi ñi gis-gisam daf koy joxe. Mhm. Euh, de même que Abdou Karim. parfois mhm. nit ñi dinañu d'accord ak ay kàddoom nit ñi itam am na ñoo xam ne d'accord ñu ak gis-gisam ak kàddoom ci yenn mbir yi. Mhm. donc loolu yëpp itam fokk ñu nangul ko ñi ñi en tant que état démocrate. en tant que également respect de la démocratie et surtout ñu mën a permettre les gens mën a am seen liberté bi ñu leen def nii. que ci garde à vue rek lay yem que duñu jéem a pousser procédure bi muy gën a sori que woo nañu leen laaj nañu leen te liñ leen laaj itam bu ñu ci apporter des réponses ñu jéem a xool nu ñu mën a def rek ba euh, situation bi gën a mën a calme pour la stabilité de ce pays parce que c'est important que nit ni mën ko préserver et surtout ñu mën a bàyyi xel nii ñi itam ñu mën a jouir ci seen ay liberté d'expression wax seenu gis-gis seenu xalaat sans pour autant ñu craindre ne boo toogee sa kër daañu la jël si wala daañu la mm-hmm. yónnee convocation ni la kaay la nga waxal état ba kat dëppoowul ak li am wala dëppoowul ak li nekk ci yoon. voilà loolu mooy. mais mami ñu tolloo fii ci réew ndax indi njàkkare boo demee ba liberté d'expression dañ lay tënk maanaam boo waree wax doo wax ñi war a wax ñemeetuñoo wax. fan la ñu jëm. il faut forcément mu am dans un pays où on se réclame démocrate. toujours mu am ay nit ñoo xamante ne nii daañu wax. dans mhm. tous les cas quelles que soient les interdictions. dëkk noonu lay doxee ñëpp mënuñoo bokk gis-gis te foog nga nangul ne nit kii tamit man ak moom bokkuñu gis-gis ci point mhm. c'est-à-dire loolu nangu gi mooy indi vraiment nga permettre yow en réalité nit ñi comme je ñu mën a jouir ci seen ay liberté totale dëkk ñëpp mënuñu fa nekk di wax waaw gongo à tout Euh, quel que soit système boo mën a teg lu mu drastique drastique lu mu métti métti ak lu mu tartar dina ci am ay nit ñoo xamante ne kenn mënu leen a tere amaana ñuy wax te heureusement que nit ñu mel noonu am na parce que bu amul woon itam euh, yëf yi dafay gën a métti maanaam te itam yow mi nga xam ne yaay jiite xëy na amaana kon doo nangoo dégg-dëgg donc il faudrait que vraiment ñi nga xamante ne dañuy woowee ay activistes entre guillemets ñu mën a vraiment jouir de leur liberté les plus mm-hmm. seen ay avis ci yenn point de vue yi après nag euh, kenn tere yoon mu def liggéey liggéeyam kenn mënul tere vraiment système bi mu suivre son cours comme on dit mais que bu mu dem ba ba mën a tere nit ñi ñu mën a euh, maanaam dakkal lépp loo xamante ne moo jëm ci seen ay àq ak seen ay yelleef man loolu laay dénoncer. Mhm. Euh, dans un pays démocrate comme ni ñu ko waxee ci te Cheikh Oumar da doon lancé d'ailleurs parti politique am yàggul dara euh, ci li nga xamante ne moom mooy dynamique bi nga xam ne fa la bëgg dem. Mhm. et loolee wane na position te dynamique bi mu jëm fa la fa la Imam Alioune mën wane na position ci mhm. ci ci ci par rapport ak li nga xamante ne moom mooy doxaliinu réew mi mhm. gis-gisam ak ci yeneen i poñ mhm. kooki àla kulu al munoo munoo yaakaar dégg ci moom loo xamante ne amaana da lay neex parce que depuis le début euh, nit la koo xamante ne maanaam dafa am constance ci li nga xamante ne moom mooy gis-gisam ak yeneen yu ni mel ñun on l'a reçu ici euh, ci plateau 2A TV dans le cadre d'une édition boo xamante ne def nañu ko je pense ci wàllum élection législative yi ñu gis benn dimension humaine boo xamante ne nit ku woyof ku am waaye ku am gëm-gëm. Mm, ci li nga xamante ne moom lay moom lay moom lay wax. macha allah voilà ku oyof toll macha allah mais mm-hmm. surtout ku am gëm-gëm. parce que gëm-gëm bi aussi c'est important nit ñi xam ne euh, ni ngay wax tey mu dëppoo ak say kàddu suba. Mm-hmm. Euh, loolu mooy tax en fait ñu naw la buñ dee naw nit. Euh, bokk na ci kàddu gi itam mu méngoo vraiment ak sa doxalin ak sa jëfin de tous les jours. Mhm. et ku mel ni Cheikh Oumar Diagne kenn mënul wax ne li nga xam ne moom mooy ay kàddoom dafa waroo ak jëfinam wala gis-gisu boppam. Mhm. kenn mënul wax itam ne ku mel ni Abdou Karim maanaam nit la koo xamante ne xëy na dafa am lu ko motiver leneen lu dul wax li nga xamante ne moom mooy gis-gisu boppam. de même que mhm. Guy yu sañaa ak ñeneen ñu ni mel dëkk nag loolee moo koy doxal ñëpp mënuñoo àndandoo bekk benn camp ñii dañuy féete fii ñii féete fee. mais ku ci nekk na am sañ-sañu. wax li nga xamante ne moom mooy gis-gisam bien entendu dans le plus grand respect de la République mais bu weesoo loolu itam ñu bañ a salfaañee ak ak yelleefu doomu aadama ba créer li nga xamante ne moom mooy tiitaange. Mhm. ci nit ñi ci seenub gis-gis euh, ci seen euh, expression ci seenub xalaat moo xam à travers les réseaux moo xam fu mu mënti doon. Mhm. vraiment nañu permettre nit ñi ñu wax li nga xam ne moom moo nekk ci seen i dënn te ñu jëlee ko juste ci kàddu yi nga xamante ne moo nekk ci seen i dënn bañ ko yóbbu ci benn dimension boo xam ne yeggagu fa.